waxtaanee na woon li nga xam ne mooy yërmande bi nga xam ne moo jiitu woon ci weeru koor jeexal nañ ko ñëw ci li nga xam ne mooy njëgalu ñu ngi dugg ci li nga xam ne mooy ngoreel bi yàlla ñu ko yàlla defal doon wax jëm ci wàllu yërmande bi nga xam ne yàlla defal na ko doomu aadama ñëwoon ba ak si aadama eh, mi nga xam ne moo jiitu ci yonante yi eh, keroog ba nga xam ne lii xew xew na def na defu waaye dafa wéeru ci yërmande yàlla yàlla jéggal ko waaye bu ñu ñëwee ci yonante yàlla yoon nuux alayhi salaam moom mi nga xam ne moom la ñuy wax mooy Adama Sani keroog ba nga xamee ne dund na ci ay nitam junne at di leen oo ci lislaam di leen oo ci di ci yoonu yàlla ñi bañ bañ koo topp di ko saboté yàlla na ko defaral gaal ba mu defaree gaal nga gis yërmande yàlla fu nekk lay daw yàlla na ko defaral gaal nga yéegal képp ku la gëm nga dugal ko ci biir gaal gi xeet bu nekk rek dugal ko ci biir gaal gi su ko defee man danaa balal ndox danaa wàccee asamaan adduna yëpp ay am suuf ak yëpp am ndox bis bobu nak kep ku duggu ci gal gi rek da ngay mu ci da ngay lab waye ba ñëpp duggee ci gal gi fekk ndox génn na ndox wacc na lan lan la wax wa qaala arkabuu bismillahi mujriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim kon dafa sukkandiku ci yërmande yalla kon dafa ne yegg leen ci ndigalu yalla ga nga ngi daw ci ndigalu yalla da ngay xamne ne borom kat kuy jéggelé la kuy yërëm la waye yermande gogu bàyyiwu mi ngi daw ci xolam ba légui nga gis ne ba mu demee ba nga xam ne gaal gaa ngi daw ki ñuy wax doomam di kanaan bañ na koo topp waaye lan la wax doom ji yaa bunayya irkab maana wala takun ma'al kaafiriin yow sama doom yéegal ci gaal gi bul bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi weddi waaye nag bu yàlla na mu ci yow texe doo texe sa bàyyi lu mu baax baax bu yàlla na mu ci yow baax doo baax kon nag yàlla nañu yàlla baaxal lan la doom ji wax qaala sa aawi ila jabali ya'simuni min al-maa bàyyi ma dinaa làqatu ci montagne bi dina ma aar ba duma làqu bàyyi na ko laa asima yawma min amrillah illa man rahim mu ne na nga xam ne tey kenn lu mucc illa man rahim lu ko yàlla yërëm kon nag ku yàlla yërëm rek mooy mën a dugg ci gaal gi mucc kon da nga xam ne fee nga jëm du la muccal gaal gi rek moo mën a musal kon yonente yàlla donc gis nga loolu yaakaar na yermande yàlla wéet na ci yermande yàlla bu ñu demee ci yonent yàlla Ibrahim wax nañ ne bañ koy musal tamit ci yërmande yàlla googu ci lay ko yàlla musal waaye nañ xam ne yërmande yàlla googu du kenn mooy aynu rahmati mooy mooy xaqiqatu muhammadiya kooku mooy aynu rahmati mooy daw ci fu nekk am na waykat bu ko way ne képp koo xam ne am nga mucc yaa ngi amee mucc ci yërmande googu kon yonent Ibrahim bañ koy musal ñu ko musalee ci aynu rahmati googu ci leen ko ci leen ko musalee kon bokk na ci li nga xam ne am nañ ko yërmande yàlla foofu ba ñu demee ci yonent yàlla ki nga xam ne moom mooy yusufa alayhi salaatu wasalaam lan la waxoon wa maa ubarri'u nafsi inna nafsi la amaaratu bi suu illa ma rahima rabbi man du ma seetal sama bakkan bakkan dafay digle lu ñaaw loolu koo xam ne yàlla ko yërëm inna rabbi ghafurur yàlla jégal yàlla yërëm kon gis ne yonent yàlla yusufa wéedu na ci yërmande yàlla buñ demee ci yonent yàlla zakariya zakariya mi nga xam ne nekkoon na di oote ba nga xam dem na ba naagu ci dundam gis ne ne màgget na ba jaaw na li ko dese mu génn àdduna bëreetut waaye ragal na lim bàyyi ci gannaaw ragal na mu yàqu lim tabaxam ragal na mu màbb ci gannaawam kon li li am mooy il faut mu am njaboot goo xam ne ñu ñëw ci gannaaw pour di doxal mission bi waaye lu mu wax dafa wéedu ci yërmande yàlla comme ni ko yàlla nettali yonent yàlla Muhammad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya fàttali ko sa yërmande borom bi bi nga xam ne na ko zakariya ba mu demee ba lott dafa tuub na ñaan yàlla mu ne ko fab li min ladunka zurriyatan yarisuni yow yàlla yàlla ma jox koo xam ne daf may donn wa yarisu min ali yaquba dafay donn ñooñ yaquba ci mission bi nga xam ne moom lañu yàlla dénk kon ci yërmande yàlla ci la ko yàlla may loolu bu ñu demee ci yonent yàlla Isa ba ko yàlla amal la la ko amalee ci yërmande gu la ko amalee ba nga xamee ne jibril dikkal na ki nga xam ne moom mooy sayyidatuna Maryam ba mu gisee baax ba pare doon sangu ci na ko dama laa bëgg may xale mu ne ko naka laay amee xale boo xam ne te man góor laaluma musuma say te du ma nekk jigéen ju njaalu mu ne xaala kazalik xaala rabbuka huwa alayya hayyin yàlla ne loolu yomb la wa linaj'alahu ayatan linnaasi wa rahmatan minna dañ koy def mu doon benn miracle boo xam ne ak benn yërmande boo xam ne ci man yàlla lay jugee ñëw ci yow kon nga gis ne kon ci man yërmande yàlla ci la yàlla amale nga dem ba tey di demit ba ci yonti yàlla muhammad ki nga xam ne mooy aynu rahma mooy jëmmi yërmande yàlla ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoonu ma yoonu ma lu nga nekk yërmande ñeen nit ñi kon war nañoo sant yàlla ñun ñi nga xam ne yàlla ñu boole ci xeetam moo tax benn waay daana way ne wa mimma zadani sharafan wa tiha kittu bi axmu kittu bi mu si at ak suraya duxuli taxta xawlika yaa ibadi wa ansiyata ahmada li nabiya bokk na ci lima dolli kontaante ak bégte bay farax-farax yi di bëgg dëgg dëgg bi du sooy Suraya mooy def gi ma def ma bokk sa jaam yi waaye nag def gi nga def yonent yàlla Muhammad bu nekk suma yonent kon nag kooku nag fekkee am na dara lu ñu bég tey mooy bég ci yërmande yàlla boo xam ne yàlla defal nañu ko mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla alquran dafa wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi dalika falyafrahu wa huwa xayru mimma yajmaun waxale yonent yàlla Muhammad ne su fekkee nit ñi dajee nit ñi am lu ñuy kontaan am na lu ñuy dajale di ci bég dañ xam ne mooy ngëneelu yàlla bi nga xam ne yàlla defal na leen ko ak yërmande yàlla bi nga xam ne yàlla defal na ko yonent yàlla Muhammad loolu moo gën lépp loo xam ne ñu koy ñu koy bégee lépp loo xam ne ñu koy dajee ngir ci kontaan kon yàlla nañu yàlla defal déggal topp defal leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh